yàlla nag dimbali ñu ma ñëw ànd fii ak njabootu président Macky Sall ñii ma nekk ak ñoom ci gouvernement bi ñii nekk ci assemblée nationale ñii ma séq ak ñoom langue politique ñii di ay xarit ñoom ñëpp nag li leen yëkkati mooy ñëw ziyaare si bëggoon mooy ñenn ñi sax nuyu sëñ Muntaxa rek la ñu bëggoon ñenn ñi li ñu bëggoon mooy ñëw gis la loolu yëpp yàlla yombalu ñu ko tey sëriñ bi ñu lay ndokkeel ci màggal bi président ñëwoon fi fan yi paase waaye doyalul ci Touba yéeneem ci Touba des lu baree bari donte def na ci lu bari mu ne ma àndal ak membre gouvernement bi ñi nga xam ne ñu ngi Dakar ngeen dem santal ma sëriñ bi ziareel ma ko ne ko yéene bi nga xam ne am naa ko ci Touba bëgg naa ngeen xoolal ma li ma ci tàmbali fu mu toll digaale yi ma ci waxoon fu ngeen ci toll li nga xam ni sëriñ bi bëgg na ko bu ma ko fàttee wax it leen ko gëstu ba ngeen ko xamee ngeen defal ko ko yéene mënut weesu loolu ñu ñëw fi nag xool la nga xam ni dëkk bi soxla na ko fi mu nekk nii ñu ngi ci nawet màggal bi fii ak juróom-ñaari at yi di ñëw màggal yi am yëpp ci nawet lay dal lay dal ak fi Touba nekk ak ni mu bindoo ñaari at yi weesu yëpp président Macky Sall joxoon na ordre gouvernement bi ñu fiy liggéey liggéey bu mucc ayib bi ci mujj muy assainissement bi nga xam ni am nañu yaakaar ci jeexantalu at bi liggéey bi dina sotti gouvernement bi def na ci ñaar fukki milliards ak juróom xam nga tuuba yàlla daf fi def mu naat boo gasee tuuti rek am ndox moo tax bu tawee rek day gaaw a taa daaw ak ren gas nañ fi ñaar fukki forage yoo xamante ni day ŋàcc ndox moomu ndax bu tawee ndox mi mën a jàll loolu ci wàllu assainissement la ni ngeen ko xamee bi président Macky Sall ñëwee ci bopp réew mi dafa am plan bu mu defar plan bi ci juróomi at yu nekk la

waaye bu bésu tey bi passé dinañ fi ñëwaat ndax tuubaa moom loo fi def rek dañ koy waxtaan ak sëriñ bi sëriñ mun Mountakha nag ku ñëw dina laaj sa xalaat waaye yéene bi mu am ci Touba ak xam-xam bi mu am ci Touba te ñu mën cee seede lu bari xam nañ ni li mu soxla ci Touba ko gouvernement bi defalee dana baax lool ci askan wi incha allah. lii nga xam ni Touba yittewoo na ko donc ci wàllu assainissement liñ ci war a def yëpp gouvernement bi président Macky Sall neen nañ ci taxaw leneen li nga xam ni gis nañ ko niñ fi ñëwee ànd nañ fi matériel bu bees tàq citerne yi andi nañ fi ñaar fukki citerne yu mucc ayib yu bees tàq yu mag yu tegu ci liñ fi daan andi Ofor andi na fi téeméeri citerne fan yi bi ma fi ñëwee ci ndaje bi ñu amoon nañu SONES nañu fexe canalisation Touba yi ñu seetaat ko ba nga xam ci jamono màggal nga xam ne nit ñi dañuy yittewoo ndox ndox bañ fee manqué am nañu yaakaar ci li nga xam ni wax nañu ko ba fii ñu toll nii yëf yi tane na bu baax wax na gouverneur léegi ci oto bi na ci bàyyi xel lool ndax ci jamonoy tàngaay lañu nekk nit ñi war a yittewoo lu mel noonu pour ndox moom dara bañ fee manqué ci wàllu courant it bi may ñëw laaj na ministère de l'énergie loolu yëpp ci ndigalu président la ndax dafa ma ne boo fa demee di premier ministre Sénégal di fa daje fexeel ba doomu Sénégal yi kenn bañ fa loru kon ministre yëpp direction yëpp ku ci nekk laaj ko yow ci sa bopp nga vérifier xool ndax la nga xam ni am naa ko yéene ndax la ma leen sant def nañ ko ci wàllu courant bi ma leen laajtee. nee nañ ma lañu waroon def yëpp def nañ ci lu baree bari bu ñu deful léppi waaye liggéey bi du jeex ndax sëñ Touba da ko liggéey Touba di màgg bés bu nekk looloo tax dina am yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko am pour mën a topp seen ndigal fexe ba Touba la ca war yëpp ñu def ko nu mu gën a looloo tax ci wàllu sécurité ren. yokk nañ ci lu baree bari ci wàllu paj bi aussi ministère de la santé wax nañ leen lu mu gàtt gàtt nañu def téeméeri point yoo xamante ni dinañ ko tas ci biir Touba pour kenn koo xam ne soxla nga paj nga mën a am docteur ci nu mu gën a gaawe bi may ñëw léegi maa ngi laaj gouverneur mu ne ma garab yi aussi lu bari teew na sëñ bi nag man dam lay sant man sam bopp ndax yàlla dogal na it suñu diggante yàgg na boobu man de cër yi ma dégg yëpp dégguma ci woon benn ngay ku baax ngay ku ma jàppale ngay ko si koo xam ne dag may conseiller saa su ne bariwul ma yëkkati dara te duma ci waxtaan ak yow kon sëriñ Bassirou bu ma yàlla mayee ma ñëw toog fii toogal fi président de la république dinaa jottali santam dinaa jottali gërëmam ndax xam naa seen diggante waaye li nga xam ni dox na it sunu diggante baax na it ma wax ko ndax yiw rek nga ma ëmbal te yàgg na lool lu mu gàtt gàtt gàtt mën na fukki at ak juróom wala lu ko ëpp kon yàgg na cër yi ma am yëpp dégguma ci woon benn kon sëñ Basiru yàlla na la fi yàlla yàggal lii nga xam ne ñu ngi koy def ren yàlla nañu yàlla may ñu teew fi at yu baree bari yàlla nañu yàlla yokk ñun ñëpp awma lenn lu may wax lu dul sant yëkkati ay kàddu sax ñëpp di ko dégg ci sa diis na ma ndax bari na bu ñuy waxtaan maa yow rek ay toog waxtaan ba nga xam ni tey lii nga xam ni àdduna andi na ko ba ma war a toog fii waxtaan ak yow ba sax dem di la gërëm dama bëgg nga baal ma ci Cheikh ibrahim toog sa wet mën naa seede lu bare bari ndax defe naa ni musuma seet si Sëriñ Muntaxa bi bu koy tàmbali seet ak léegi mën na fanweeri at te jaaruma ci Cheikh Ibra su ma fi ñëwee bu ma wooyee sëriñ bi sax mi ne ma Cheikh Ibra nekk fi danga koy ne ah sëriñ bi xanaa rek may bàyyi rek ba Cheikh Ibra ñëw ndax yàllaa ma booleeg moom loolu yàgg na Cheikh Ibra santal leen ma ko bu baax a baax xam naa li kàddu yi may yëkkati sax di diis na ko lool ndax gënalu ko waaye am na lu ma xam seen diggante mën ko seede ñi fi ñëw nag donte ay membre gouvernement lañu ñenn ñi waaye ñëw ñëpp ay taalibe mën naa seedee ñi fi ñëw ñëpp am nañ ci yow cofeel ñoom ñëpp bi ñuy gisee sëriñ bi it àndu ñëw nag seen sago bu ma sañoon nit sëriñ bi wéet ku nekk waaye bi ma ko seetaatee bu baax dama xam ne loolu donte sëriñ bi may na ma ko waaye jaaduwul waaye ñu ngi toog ci sa pegg xam naa ni buñ ma bàyyi rek du ma damay xaabaabal ni koy olof yi di waxee te gënul te du teggin waaye kontaan yow rek bëgg ci yow ndax diggante bi yàgg na diggante bi yàgg na jàppale bi yàgg na conseil yi yàgg na yal na la yàlla fay sëñ Touba bi nga koy defal yal na la fayal boppam kon may sant askan bi yëpp di leen gërëm jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuho ministre premier ministre bi ne mi ngi yëkkati nuyoo di ko teg ci loxol premier ministre Amadou Ba ak mbooleem bi ma àndal lépp di ay ministre ak i directeur ak i mais xam naa bu ko limee day juum rek waaye bu la tuddee nee du rawatina la mu séq ak yow ku ci nekk la mu séq ak yow jàpp na ko kon nee sëriñ bi nee mi ngi lay delloom nuyoo bu baax ci ndigalu cheikh Mouhamadul Mountakha ne lii kat cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko ko sant waaye ne du kàddu yi boppam. sëriñ bi nee mi ngi lay nuyu bu baax nee te di la sant Amadou Ba di la gërëm di la yóbbante nuyoo ci sa kilifa président Macky Sall nee barki daa président Macky sàll ñëw na fi ci sëriñ bi nee yëkkatu fi kàddu yu rafet rafet nee sëriñ bi tontu ko. ci jëf ju mag ji nga xam ni def na ko mooy xam ni nii mu doxale ci réew mi ngir indi jàmm sëriñ bi mi ngi lay yónni ci président de la république ak cant ak ngërëm ndax diiru mu di fi nekk ànd naa ak moom ci àndin wi gën a rafet lépp lu sëriñ bi yëkkati dana ci def lu man def ca lu mënul ne président Macky Sall lépp lu ko sëriñ bi wax ci njaboot gi dana ca góor góorgóorlu ba def ca lu mënul ne bu dul loolu lépp it nag cofeel gi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci yow ci moom président ne président Macky Sall it am ko ci sëriñ bi ne loolu doy na sëg kon loolu la ñuy jiital xam ne daal sëriñ bi sant na ko gërëm na ko ci jëf ji nga xam ni président Macky Sall jëf na ko ci dëkk bi la ko sëñ Muntaxa waxoon rek ci saal bi la ko waxee woon ni ko jëfal président te bul geestu ndax sëriñ Bamba ngay jëfal jëf leen te woo fee kenn ku dul sëñ Tuuba kon loola teg na ci bëtam ne bi ñu jëlee décision bàyyi sëriñ bi wax na ko ci làmmiñam ci téléphone mu toog muy wax ak président Macky Sall mun ko dénk ga ma la dénkoon sëñ Touba moo la may mujj gu rafet gii nga am kon yàlla na ko yàlla gën a dimbali ne président Macky Sall li mu jëfal sëñ Bamba itam yàlla ko sëñ Touba fay ci àdduna ak ci àllaaxira ne di leen sant ci taxawaay bi ci màggal gi. nee ministre yëpp ñëw nañ fi nee ministre intérieur Antoine Diome moo ko doon coordonné waaye yaa nekkoon kilifaam yaa doon jokkoog ñoom ñëpp ak ministre yëpp di laaj lu ne ci màggal gi fu mu toll waaye mu di la seereel mboolem lu état bi mënoon rek def na ko ngir bëgg màggal gi bañ am benn gàllankoor. ci fànn yépp ndax ci wàllu courant def nañ ci lu baree bari tali bi dëkk yépp a yàq woon ndax ñetteet yépp defaruñ ko ba noppi nab bi ni mu yàq tali yi dafa doy waar waaye li cëpp defar nañ ko gas nañ fi ay forage yu bees ñi daa yëngu ci assainissement bi ñu ngi ci liggéey bi kon li ñu mën lépp daal ñu ngi lay seedeel ni ci turu sëriñ bi def na ko la ca des nag Touba moom daa rëy day dëkk boo xam ni ginnaaw ba Ndakaaru jàllee moo ëpp Sénégal te ñi yor assainissement bi tey gëstu wax nañ li tax mu yegg fa mu jëm faaw gàtt gàtt deux cent millions deux cent milliards daal dana ci duggaat kon dëkk bi ree noonu ne da koo jiitu lu bari ndax ndox mi moom yaakaar na ni ñépp ko dundandoo tey néew na mbedd mooy romb ba noppi jàll loolu nag kon liggéey bu rëy rëy la boo xam ne daal moo des ci kanam waaye li ngeen ci mënoon def ngeen ko te nabbiit mi ngi yokk nag yokk gu mittee mitti firnde ji rek mooy kër sëñ Tuubaa gi nu ne fee ñu daa defee cérémonie officielle ba defar nañu baas ba ba def décoration ba mu yegg waaye biig bi mu tawee ndox mi tàmbalee génnaat ci biir suuf si ba ca buntu kër sëñ Fallu fa la ñu koy mujj defee kon nag loolu yegg na foo xam ne liggéey bu réy la boo xam ne bu buñ ko gëtanduwul dana doon yàqu-yàqu bu mag te fii musu fee yegg ren la fi yegg si boo demee kër Cheikh Abdoulaat bâtiment bi sëñ Abdoulaat nekkoon nga xam ne fa ñu ko mujj siyaare ndoxum kese la léegi bâtiment ba ndox mi xaw na koo nangu boo demee kër sëñ Caaliwu noonu boo demee kër sëñ Cheikh Gaynde Fatma noonu kon daanaka jumaa ji rek la fi bàyyi te biir armeel ya bañ fa defagul forcement rabattement dem na fa am barab yooyu kenn mënatu faa denc daaw jéeg mooy bi ko sëñ bi yónni ci président Macky sal loolu yitte yu jàmp la ci dëkk bi ba ca desit mooy lu mel noonu rek kon daal cant rek di leen gërëm leen lañ leen di def beral la nag premier ministre sa cantu bopp ne waxul ma ak yow sax waaye président daal ki nga xam ni kii mooy ministre Amadou Ba sa diggante ak sëñ Muntaxa ne moom mi de xam na ci lu bari ne lu ko ci sëñ bi waxut sëñ Cheikh Ibrahima Mbacke wax na ko ci lu yàgg loo xam ne du tey du démb ne sëñ Muntaxa am ci Amadou Ba ak cofeel cofeel koo xam ni boo ko doon natt doo xam fu mu yem lu yàgg-yàgg la mu wuuf la jàppee la doomam jàppee la taalibeem jàppee la njabootam sa mbir ñor ko lool ñor goo xam ne gi yërmande ci sëñ Muntaxa am ci Amadou Ba neexut wax ci biir mbooloo loolu doy na sëg ki fi nekkal sëriñ Tuubaa ku am loola ca moom loolu doy na sëg mais moom nag Cheikh Madul Bachir ne diggam ak yow ne li nga wax fukki at ak juróom ëpp na ko ne 2003 la ma yàlla booleeg moom boobu ba nag ñaar fukki at du benn bis waaye mosumaa gis genn soppiku Cheikh du Ba ne ak fonkeelam Cheikh Madul Bachir ak jàppam ak yéeneem. nee na ndax Amadou nag sëriñ bi nee yow loolu la la yàlla bindee nee mbooleem ku la xam rek xam na ni ku yéwén nga ku yéene ñëpp am ku yéene ñëpp jàmm nee nit ñi sax jàpp nañ ni denc nga alal waaye jàpp naa ni dencoo ko ndax loo yor jox nga ko nit ñi na ma dikk Ndakaaru lu mu gàtt gàtt faw mu ñëw fa. benn yoon wala ñaari yoon Touba moom li mu fi ñëw di ko seet si nee bu ko doon xayma mënuñu su ko takk fu mu nekk rek fekk nga ko fa ne it joo ma sa dégg it ba ngay nekk directeur domaine ak ba ngay nekk ministère des finances ak ba ngay nekk premier ministre yitte taalibe joo dégg da nga ca def yitte def ca la nga xam na sa yéene nag ci Touba xam sa yéene ci sëriñ bi xam sa yéene ci nit kon ñu ngi lay sant ndax président Macky Sall ci boppam xam na diggante Cheikh Mamadou Bachir mii ak premier ministre Amadou Ba ndax ay yoonu yoon yóbbante na ko ci moom kon xam na seen diggante lañ seq seen ñaar ñaar dara ump ci président Macky Sall te xam na ni. ku mën a rafetal na seen diggante ndax yàlla def na nekkoon na ci nguur ba génn ca lu mat ñaari at wala lu ko te nit ñu mën a yàq lañu waaye kenn mus sa gis mu def wala mu wax lu wuuteeg bëgg président Macky Sall loolu kenn mënu koo weesu kon ñu ngi lay ñaanal bu baax te di bu baax